bokk yi gannaaw bu ñu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey baal xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jéggal di fàttalante ak sunu bokki jullit yépp lenn ci yi suñu borom tudde ay kaawteefam kaawteefu suñu borom nag ngir jegal ko nit ki ba mu xam ko mooy ba mu ca noppee kenn duutu ko ca fekk ba mu ko defagut moom nit mënu koo xam ba di ko def waaye ba ba ca suñu borom noppee la ca ñépp noppi jéem ko tax koo max ngir nit doon nit ku ma sëkk ak yi nga xam ne dañoo mel ni nit di dox di dikk di lekk kan am juróom yaari yëf yi faw mu mu ne ci ñoom mat sëkk ñu soog a doon lañ doon ñu soog koo mag ba ca jëkk mooy lekk nit amut nu muy toll ba du fab def ci gémmiñam lekk foofu wuute geeg suñu borom daf fay daal di feeñ lool ci matam nit moom waaye li feeg ma ngay soxla lekk day soxla naan kon nit mënut a toll neen ba du soxla ndox mu muy def ci gémmiñam di ko naan waaye nit tam mënut a toll neen benn nit ñi gis ko wala ñu bañ koo gis faw mu am ay jooy jooy yi muy jooy nit ñi di ko gis wala mu làqatu jooy ko ree moom waxalewul ku ne xam na ku mu xam dégg wala mu yàgg koo dégg mu gis muy ree waaye wéret yi nit mënta judd ba faatu te musta jaar ci wéret yi yooyu yëpp nag kaccat suñu borom bi may mujjee mooy nelaw nelaw moom suñu borom daf caa da ko beral da ko ber ne bokk na ci ay kaawutéefam doonte ber na yu bari moom lañ koy tànn tey bokk na ci ay kaawutéefam yi nga xam ne kenn du ko ca fekk nelaw yi ñuy yónnee ñu di ko nelaw guddi wala bëccëg nga xam ne bu jotee ku ko ci defut su man manee ba defu ko it faw dana feeñ fi barab loolu yàlla noppi na ci saa bu jotee ni muy xiife ak mar noonu la koy dikkate léeg-léeg nga ku ñuy yéem naan du nelaw du nelaw guddi du nelaw bëccëg waaye kooka ña wax ak manqueem doomu aadama ak manqueem nit ak nitam mëtagut nit daa war di nelaw mbir mu yéeme la wa min ayatihi manaamukum billayli wannahaari wa ibtigaa'ukum min fadlihi inna fi dalika la ayatin li qawmin yasma'uun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci njàngaleem mu yaatu ma nga xam ni la doon dund ak jaam ñi fii ba addunay tukki wala ba ba muy soob suñu borom loolu xool rek mën nga am njàngaleem mu leer nañ nga xam ne la muy la ca jaam bi dégge mooy la yàlla ne woon lu waxee bakkanam saa su ne day gis lu ko firndeel bi sallallahu alayhi rëdd na ne ku yëg ne mi ngi bëgg nelaw na def lii def laa loola bañ doxee junni at yu teg ñiy liggéey ci wàllu wér gu yaram dañu koy bàyyeeg ñoom waaye bari nañu ko firndeel ne loola su ko nit defee dana nelaw nelaw yu dal te du ko wàññi dara te bu jógeatee it mën naa delluwaat ci ay yitteem na mu ko bëggee te du ko sonal bokk yi nit ki mën naa def li wax war ak saa bu nit ñi dee fatu ji war a nelaw moom waxtu woowu du waxtu nelawam ba far tàmbalee ñàkk ay nelaw su demee ba day dem seeti ab fajkat mu di ko jox weey bokk naa naanee nelaw kooku day toppandoo rek yooyu nelaw neexatul nelaw yoo xam ne day forcé day daan boppam di nelaw moom yooyu du nelaw dara waaye nelaw yàlla di yónni jàmm di ko yónnee jàmm ku ko xool dana jëm dee juróom-ñaar yi lim dee da caa dee nag daa mel ni nelaw mbokk mbokk mu ko jege la mbokk mu ko jege ku mus ci gis ku dee rek nga dem xool kuy nelaw na mel sànni fee ab loxo sànni fee ab loxo sànnib tànk ne cell soo ko su dee nelaw dëgg la sax mënees na ko fab yóbbu ndax dañ koy def gone gu ndaw muy nelaw ci biti ñu fab yóbbu ca biir te du ko yëg day yeewu yeewoo ca biir rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci njàngaleem nee na nelaw daa am aw yoon am nees di jànkonte ak moom jëflante ak moom am cab yool waxuma nelaw yi ku naan dara nag walla mu log dara wala mu kimmi dara nelaw yi yàlla di yónnee nit ki laa wax moo tax yonent bi di wax doon na wax ne taamu wut kuy nelaw te julli gee loola lu yomba dégg la lu yomba dégg la ñeewoon na it ku julligee ba noppi euh, te gee suñu borom boole ko ci waxtu yi mu tuddee salaasa awraat kenn wuru koo seeti kenn kenn wuru ko waxtaani fenn kenn wóorta dem fenn di fa ngonnal gannaaw buñ jullee gee ba noppi nañ bàyyi nit ñu dallu ji ndax ñu teel a tëdd teel nelaw teel a xëy liggéey newoon na ku julligee ba noppi te ragal ne balaa mën a def li ñuy wax witr nelaw mën na ko dikkal na gaaw def ko su yewu waatee ci guddi gi lu mu bëgg a julli mu julli ko loolu it bokk yi tudd na waxtu gee tudd witr tudd julli kon dama doon nelaw ba teema julli di aw lay moom sallallahu alayhi wa sallama ci yim jàngale nee na ku bëgg nelaw nelaw yu daal nelaw yuy defar aw yaram buy nelaw bu mu ab làmp ci néegam bëkk de moo njaay am na euh, wax yi nay waxe noonu dag naa barki démb boo njaay am na kuy wax ne ku bëgg a nelaw dëgg dëgg dëgg tudd waaye xam-xam bi xew léegi moo ko wane ci ne njàngale mi bi sallallahu alayhi wa sallam saa su ne day gën a leer nee na kuy nelaw na fay làmp yëpp fay lépp luy takk rajo ak télévision ak portable ak lépp fekkoon yonent bi wax ko bu yàgg bu ngeen dee nara bu ngeen demee ba nga xam ne yëg ngeen ngëmmentu def ngeen la ngeen war a julli ngeen ba witr na ngeen fay làmp yi te tëj bunt yi te ub dab yi yu ci am kubéer nañ ko upp bu ko amul nañ ko muur donte dañuy teg ab bant ca kaw rek atfiu almasabiha ida raqadtum wa xalliqu alabwaaba wa awku alasqiya wa xammilu altaama wa alsharaba walaw bi uudin taariduhu alay nee na it néeg bu nit fas yéenee dalloo gëmmant dikkal ko bu mu fa bàyyi lenn luy niroog sawara dégg nañ fi bu yàggutoo ñoo xam ne dañoo xëy fekk leen ñu faatu ñu ne saxaar sa doon génne ca ànd bañ defoon ci néeg bi moo leen bi jàng gisoon na ko bu yàgg ba jàng dugg ci néeg naree gëmmentu na génne ànd ba bu fa luy na rab sawara tàkk mbubb mën na caa wadd daanu ca mu taal néeba walla dara walla walla walla yii fanaan ci néeg sax mën nañuy fortaatu daane dara ca kaw ànd ba mu taal mu taal nekk sakkantum ak saxaar si ñuy wax naan ku ko noyyi lii ak laa loolu nag daf cay duggaale téléphone yi njore télévision yi waaye tere woon na it kuy nelaw ci kaw teraasu kese kese boo xam ne amul mur ndaw yi koy wër loolu it ñi amutu terrasse gong goo xam ne gi susul fenn gong gu susul fenn lañ ko see bañal mooy nelaw yi ëpp muy wëlbatiku far daanu te suñu blaat la woon am na ci jëll yoo xam ne fekk mi ngi wone nit ak nit ak daf ne nit ñi suñ la fexeel ba buñ la mën a takk ndax kuñ takk yanu ko waaye boo fexee ba ñalu la bul yéegal say tànk ba mu jeex samp ko ci suuf ne wàcce leen ma fee soo ko defut léegi te ñu toqi sànni la te bu ñu la sànnee am na daal gu la dal muy daaru yeneen ñaari daal mën na caa fekk muy damm ak dee loolu taxul sallallahu alayhi wa di wax ne ku gëmmeentu bu mu tëdd foo xam ne dara du ko fekk newoon na it balaa kenn na tër yi ndax daa yëg ngëmmeentu gannaaw bu jullee ba noppi naka lax ndiko ba ñu nekkoon ci gémmiñam mën a dañ ndax xamoon nañ ne am na ñu dëkk ci ab néeg ak nit soo jënd pàkk doo ko gis booy xëcc ndox doo ko gis mboolem jéego yi nit di def ba tabax du ci gis kooku waaye buy sanc muy sanc kooku mel ni sa ndax ak ña mel ni moom te kooku wax nañu li ci li muy dunde mooy lii bu nit ki nelawee bu ñu gëtul dara bu ngaayee yow ak yee génn si mañum lekk am ñoo xam ne bu ñu ko yëgee léegi bu ñuy nelaw dañuy kaalaw mu wërale seen gémmiñ waaye su sa wërsëgam nekk yàlla noppi na ca moo tax mu ne balaa kenn tëri te yëg nga mént na dem gàllax nga ko bëgg gémmiñam sax xanaa mooy yi xew léegi rek di ko def ci gémmiñ gi di ko jëmale ni ak di ko jëmale naa wala soj loolu it dama koy jàng yëmut foofa ndax xam-xam wane na la léegi xam-xam mooy fekk waxi yonente bi sallallahu alayhi wa na yi des ci gémmiñ bu ko muy nelawaale ko mu di ko nelawaale moo koy jural léeg-léeg mu ne bëñam daa bënn wala gémmiñam day metti wala am si ñam di naaj kon yéen ci ko bu yàgg ëpp na junni ak nangam ne woon na it ku ngëmeentu dikkal ba mu nar a yi na raxasu ba set wicc loola gisees na léeg-léeg nit di nelaw ba yàgg mu ne rët ci ci ay nelaw rët ne ba fekk janaxakoo ne kii ndax day lekk rek taxoon ca loxo ya ba mu jeex mu jaawale ko loxo loxo ak yamel ni ñoom nee na ku tëdd na tëddifu yooyu ma wax lu ko gaare bu mu yedd kenn moom jaanam wàccoon na dellu wax ne ci ab jullit boo xam ne xoolam a ngi dund su la ngëmment dikkalee ba nga nar a tëdd rikk bu dem tëdd rek ndax nit ñi tëri nañ di xaar ay nelaw waaye na nga jàpp mel ni kuy bëgg a julli ci yëlëb sabla yëlëb ndax mën naa am lu ko fa wuutu am nañu tayala tayal ba dañ naan demal yëlëbal ma waaye waaye suñu dal bi ngay tëdd xanaa yëlëb ko yomb na nee na nag su boobaa na dem jàpp njàpp mel ni kuy bëgg a julli ci waxtu yëlëb boobu lalam wéer wetu ndeyjooram lal ab euh, le euh, ab loxoom ci ab lexam lexam ndeyjooram baña a gëmm gëmmlu bañ naan doom yi koy naraw lool su fekkee nee bu wér te wax naa junj naa ko léegi naa ne door a nelaw moom du du du du wér su boobaa na fa jàng ayatul kursi lu man ndax ayatul kursi dañu nekk ci tawxiid bu demee ba yàgg muy def subhanallah bu demee ba yàgg muy def alhamdulillah ba yàgg muy def allahu akbar yooyu nag ku ko tàmm ba tàmm ko bu faatoo ci guddi gi it mën naa am yaakaar moo taxoon mu ne na tëdd na tëdd wetu ndeyjooram fab loxoom bii bopp ndeyjoor bi lal ko teg ca lex ba tëdd wetu joor it ñi xam kat xam kat yi am na luñ luñ ca wax lu bari waaye ñooy fekk li yonent bi waxoon rek sallallahu alayhi wa sallam bu demee ba nga xam ne nag wax jaa ngi dagg-daggee bu ne allahu bala koo waxaat ba yëg ne la lu mu jamp-jamp na wax lii bismika rabbi wadaabu janbi wa bika arfauhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka alsalihin yàlla may ngi ñi di nelaw xawma danaa yeewoom déet waaye su ma jaaree demit ruugi ak sama jëf yàlla na ko gërëm te yërëm ma su ma yeewuwaatee it na nga ma dimbale ma ni nga ma sàmmee ba ma yeewu na nga daan sàmmee sa gaaya mais loolu ñuy lii moom kon kuy ku gëmmentu war a tëri rikk bu mu dem gëmmentu sax laa gëmmentu moo jaar dem tëri waaye gis nit ñi tëri rek mu dem tëri bum séentoo nelaw jël téléphone am du xool lu ñor ak du xool lu ñorul ba nelaw dikkal ko su boobaa téléphone ba fayut te yonent bi nee na moom fay leen lamp yi te bu kenn bàyyi sawara ak numéro moom ci biir néeg bi fekk ñu ne ñaata yoon lañ fi wane ci wanewukaay yooyu koo xam ne kanam nga boo ko gisee doo ko xàmmee ñu ne la ko teg daa fa doon lam doon dégloo teg ko ca def ko ci courant ba teg ko ci wat lax bi di déglu ba yàgg loola tàng ba tàng muutu ko muñ loolu mel teel def ko kon boog njàngale dañ ko war a delloo lu mu sew kon bokk yi lekk naan jooy ree wopp nelaw juróom benn yoon kenn tolluwut nen ci nit ñi ba di ko weesu ku ko weesu nag nit ñi nekk du lekk am na ñu koy yëg far bàyyi tuuti la ñuy mos wala boog duñu lekk kanam nit ñi waaye ña denc muuraake moo xam ne ñi bu ñu wéetee na ca nag na ca nag nag nag nag guub dox loolu lu ko fi jar takalluf jëru ko nit day lekk di lekk ba suuf bañ a rek bañ a ñokk ñokkal jaamoo ko yàlla su soxlaa ndox mu naan bu gisee loo xam ne jar na jooy na jooy ndax ci melokaan nit la bokk su gisee lu jar ree na ree ree yam bañ a kekk fal yadxaku qalilan wa yabku kasira euh, su bëggee nelaw nga dem nelaw ji bañ a gëmloo nit ñi ne moom du nelaw kat su boobaa nit ñi waratuñ koo xaar waratuñ ko xaaru ci dara ndax du nit bokkul ci nit kuy wane ne moom du wéradi mukkit am na ku mu bëgg a roy bu dee nelaw yi yàlla rek mooy koo xam ne laa taaxuduhu sinatun wala nawm kon nit ki nelaw ak yeewu daa bokk ci ak matam nit te mooy ci yàlla du wax ne ko inni jaalu fil ardi xalifa dee moom kenn natta déetu ko kenn natta déetu ko kon boog njàngale yonent bi lu daj kapp la lu mbir sew sew bu ko nit ki tàyyi na ko xool bu ko xamul na dem laaj ko ko xam mu leeral ko ko naññi moom nag ay waxam desu ko jël di ko dëppale ak science waaye science la jëli dëppale ko ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla ko dëgg topp te may nu muy nelaw ak yeew di lekk muy rees ci jàmm ñu di ko jaamu yàlla yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin